mbégte rek ak kontaante bu baax a baax a baax jàkkaaroog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 ànd ak suñu naataango people ak waa seen Buzz ci ba tey rek ah ci li nga xamante ni moo di bësu mbégte bi ñu daje suñu frère euh, Pape Demba di jël soxna waaye booba léegi rek maa ngi daje ak ay ndaanan di leen dalal di seeq ak ñoom waxtaan waaye ma daje koo xamante ne nag jamono ji moo tee bës bi loxo ma ngi ci soos ah, sama sista Mariama mais am mbégte nag bu baax a baax a baax toog ak yow bàyyi la nga nuyoo ak mbokk internet Euh, salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp vraiment di rafetlu seen taxawaay fii nii si bés bu rafet bi. Mhm. macha allah ngay rafetlu suñu taxawaay comme ni ma ko waxee rek saa su ne yéen a ngi bégal sénégalais yéen a ngi bégal askan wi ñuy ànd ak yéen ci liggéey bi. nga toog fii ma may la occasion rek nga yëkkati ay kàddu fan si ak soppe yi leen topp ci liggéey bi yan kàddu nga leen di wax. Euh, déjà maa ngi leen di gërëm. parce que du ñàkk yenn saa yi nga gis ñoo xamante ne duñ comprendre ce milieu. léegi ñu ñuy nekk si biir affaire bu métti la en fait bu nga xamante ni dañ koy daj ñenn ñi dinañ comprendre ñenn ñi duñ comprendre des nga gis boo xamante ni dalay saaga wala mu xas la mais dañu leen di wax rek nii rôle la bu ñuy sore mais bu ñu paree rek pare lañ quoi. Uh-huh. macha allah mais ñëw ci loolu tey dañuy féliciter suñu frère Pape Demba ci bésu mbégte bi ñu xam seen diggante yéen ñaar xam naa ni sénégalais ci télé bi lañ leen gis ni rek mais. am ngeen diggante bu am solo ci li nga xamante ne moo di relation yi leen boole ban yëg-yëg nga am tey ci bés bi. xanaa kontaan parce que Pape ma dafa nekk sama ndigaay euh, sama sama rakku yaay la. waaw mu nekk sama mu nekk sama xarit. war vraiment mu nekk nit du baax nit du oyof nit du ma bëgg nit du yëg nit tamit nit bu nga xamante ne macha allah vraiment kontaan naa si bés bii daal ndax mbégte rek lañ ciy am. mbégte rek nga ciy am tey pour Brefine comme sénégalais yëpp dafa am kàddu seede bi ñuy wax ci moom ci mbaax geek yaru gi yow miy jarbaatam lan nga ciy dolli ci kàddu yi nga xamante ne askan bi ñu ngi koy wax seen di baax bi dëgg la yaru na teey na vraiment euh, alalam boole ko kenn vraiment yéeg na nit parce que moom lu muy lu mu lu mu euh, naa ko mu expliquer maanaam li mu yéene boppam lu ko ëpp la yéene nit en fait lu ko ëpp la yéene nit vraiment mu amul benn problème daal. Mm-hmm. amul benn non. macha allah nga koy ñaanal lan ci bés bi. maa ngi koy ñaanal sëyam barkeel vraiment mu déggoo ak jabar ji vraiment. voilà am si njaboot yu barkeel ba vraiment yàlla musal leen si cat ak làmmiñ surtout lool <laughs> <laughs> yàlla musal leen si cat ak làmmiñ ku xam Pape Demba xam ni sa ndijaay la euh, soxnaam di sa umpaañ lan nga koy wax ci sëy ak célébrité ndax ñu bëri dañu naan sëy ak célébrité yombul bu doon kàddu yoo koy yi rek ci ay conseil yan kàddu lay doon. mu muñ. parce que sëy ak célébrité surtout mu nekk góor du ñàkk tey jii nga gis mu génn après mu bëri ay jigéen ñoo xam dañuy nekk en crush si moom ñoo xam te dañ koy nopp ñoo xam te dañ koy topp vraiment na muñ daal parce que xam njëkk ni jëkkër ji moom la nopp moom la tànn moom la takk loolu kese la. waaw ah, loolu kese la yaa dalalee sa xel umpaañ. waaw waaw sama xarit la moo tax <laughs> waaw dañu déggoo ma moom. macha allah ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax yal na yàlla barkeel euh, sëy bi waaye ginnaaw loolu jamono ji bokk nga ci xale yi nga xamante ne sénégalais ñu ngi lay bàyyi xel ci liggéey bi am solo bi ngay liggéey ban yëg-yëg nga ci am. pour man pour sama part. métti woon na vraiment métti nekkoon na lu métti mais après géré naa ko boo su génn yenn saa damay xaw a gêné wu xam nga voilà quoi bu nga ñëw parce que personnage la nga génn si personnage bi ñëw génn après ñu naan la diw Mariama Mariama bon mais dama siy kontaan benn côté aussi vraiment. lan moo ci métti woon métti bi fan la woon. métti bi si sama rôle. sa si sama rôle. parce que nan woon ci yow. parce que dafa nekk rôle boo xamante ni genre euh, xal déjà xale bu rebelle laa si doon joué. Mm. xale boo xamante ni euh, voilà dafa réew respecté woon yaayam et tout ça léegi su ma daan génn daan métti si man demoon naa ba benn moment mënu ma woon dem fenn dama doon toog sama kër wala pour ma jàngi problème lay doon e tout ça donc euh, mu nekkoon lu métti man mais quand même après géré naa quoi. métit bi ci lu la nit ñi daan wan la ñàkkoon a xam personnage bi ak. jëmm ki nga xamante ne moo di Mariama ci jugement yi daal nga xawee woon am problème. waaw am na problème si jugement yi parce que mës naa génn am ku ma naroon dóor si mbedd. vraiment <laughs> mu nekk jour boo xam ne tiitoon naa lool. xaw ma ko mais aussi au niveau du tournage waa métti woon na parce que voilà xam nga ne ñu muy demee ak yooyu noonu mais après géré naa ko. après géré na nga nekkoon ak sa yaay comme li nga xamante ne moom la Sénégalais yëpp kii nga dekkaat ci ay yeneen loxo li nga ci dund def. expérience la parce que jóge si waaw comme ni nga ko waxee dem si beneen yeneen loxo euh, mais yàlla dafa def nii damaa dem rek déggoog ñoom amoon benn problème déggoo ak ñoom vraiment ñu adopté ma ba sama yaay ji si série bi doom dëggantaan la ma nekk parce dañuy déggante daf may nemmeeku day mel ni comme doom ñu mu jural boppam donc amul benn problème sama diggante boobu noonu vraiment. ci boobu ban jàngale ngeen ci jublu woon en fait euh, pour wan ni que ni waajur du morom déjà parce que euh, lu mu bon bon bon yaay ak nit lu mu sikk sikk sikk waajur la parce que ñoom ñoo la jur ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo sonn si yow donc ak lu mu mënti metti vraiment euh, dañoo war a respecter mais aussi doon nañ jàngal parent parents yi tamit dañu doon wax war a wax ak seen doom. parce que ñàkk communication bi am ci entre waajur ak doom mooy indi lu bëri mooy indi réeroo mooy indi ay yenn ñàkk déggoo yeeg yooyu noonu donc loolu ñëpp da siy reflété donc moo indi woon problème yooyu noonu mais dañuy jàngal nit que ni que ni parents yi war nañ wax ak seen doom mais doom war nañ jox cër seen seen i na jox cër parents parents yi war nañoo waxtaan ak seen doom tey parent yu bëri dañoo jàpp ne bu ñu xëyee utal seen doom lu ñu lekk lu ñu naan rek wàccoon nañ ak ñoom communication bi ci war dëgg du ci am loolu mën naa indi lu mais loolu du yoon. parce que euh, boo joxee nit lekk naan ok euh, lu ko war la mais euh, war na communiquer war na wax war na xool doomam lu koy metti war na xool doom ji si lu mu nekk war na xool nit ki ñu muy fréquenté surtout vraiment ngay xool di ko topp di topp sa doom di xool li mu nekk yëpp parce que man maa ngi nii sama yaay ji ma jur sama xarit la. sama meilleure ami la du ma def lu nga xamante ni ñëgu ko wala moom du def lu nga xamante ni man ñëgu ko. parce que may taaw maay yëg ne mu ngi noonu léegi day am yenn respect yoo xamante ni dina am mais du ma ko mës a dépasse parce que dafa am lu ñu wanante ma ak moom donc loolu la foofu si biir à travers série bi dañ doon jéem a jàngalee loolu. moo la ci gën euh, sama séquence ak sama yaay. Euh, séquence finale bi. bi may juboo ak moom. parce que jour boobu damaa jooy jooy bu jógee sama xol ba nga xamante ni dama koo dundoon moo tax loolu mu si gën a marqué. bëri na ak doom yoo xamante ne ñu ngi dundee nu mel noonu ak seen i waajur di tongoo ak ñoom fàtte démb bi nga xamante ne moom la seen waajur dat ci ñoom ñi nga xamante ne ñooy dund ñu mel noonu ak seen i waajur yan kàddu nga leen di lancé li nga xamante ne moo di message ñu gën a jàppat seen i ay waajur. ah <laughs> di leen wax ne daal waajur du morom surtout yaay yéen du ñu morom ngeen respecté leen. di waxtaan ak ñoom lu mu metti metti ngeen waxtaan ak moom parce que am na parents yoo xam te ne duñu ubbi seen kanam seen doom yi pour ñu waxtaan mais bon affaire daal ay déggoo la nii rek affaire arrangement mais bu ñu mës a dépassé parce que waajur dafa fort vraiment bu fi jógee ngay doog a comprendre que ni am na solo lool bon nañ fite si ñoom si li ñuy dund. ñoom si li ñuy dund muy kàddu yu am am solo waaye aussi ginnaaw li nga xamante ne mooy yaay 2.0 nga liggéey ci liggéey bu am solo sénégalais nag ñu ngi xaar ay projet Mariama la la leen Mariama di wax. nañ ma xaar maa ngi ñëwati <laughs> maa ngi ñëwati ak doole loolu moom nañ ko xaar <laughs> waaw. mais rôle bii nii Mariama mën na jouer yeneen rôle yu bokkut ak yi parce que bii dafa frappé sénégalais lool pour ñoom Mariama mënatul leneen lu dul lii. bien sûr mën naa yeneen kay <laughs> moom <laughs> si deret bi la <laughs> waaw si deret bi la. Ah. Mhm. kon bii daal gars yi ñoo la ko jox mais assuré nga ko. assuré naa ko mais assuré ak yeneen incha allah. Mm. waaw nañ ko xaar. naka nga gisee milliard bi jamono ji ni muy doxee. Euh, c'est-à-dire. Hmm? gisee milliard bi ndax jamono ji maison de production yi bëri na euh, ñi siy génn ñu leen ci xam bëri na naka nga gisee doxin. ah pour man de ci man de lu baax la. parce que voilà ku am moyen te xam foog nga xam affaire yi bien sûr nga ubbi sa maison d'accord mais lu rafet la comme genre euh, tey jii mu ngi mel ni man sa maison de production bi ma boot déjà c'est nouveau et euh, voilà nekk na loo xamante ni tey jii nii day permettre ñu nga xamante ne bëgg nañ doon euh, actrice wala acteur ñu nekk ko wane li nekk si ñoom comprendre nga nga xamante ni da ngay génn li nekk si yow en fait mais doon am koy rafetlu rek. kaddu yi nga xamante ne à chaque fois dañu koy faral di joxañ xale jigéen yi baaraamu tuuma siiw jaral na leen lu ne ba dañu si dégg ay promotion canapé ak leneen ak leneen euh, yan kaddu boo ko déggee en tant que jigéen nu mu lay def ak lan nga ciy wax. loolu dama koy dégg dama koy dégg franchement mais juste pour dire que lu jot yomb parce que loo yóotu amoo ko daf fekk boo ko si yow walla daf fekk day yéex. donc damay wax ni que rek ku si euh, euh, ku si bëgg postuler tey ji ñu proposé la lu nga xamante ni jaaduwul bu nangu parce que yàlla noppi la ba pare donc loo yootu day fekk mu njëg la waaw loolu laa donc nañ def nànk daal bañ a dugg si yenn yi. def nànk bañ dugg ci yenn yi yaakaar naa ni instant bi. Euh, Mariama pare na pour liggéey ak yeneen maison de production yu mag yi ci réew mi. bien sûr bien sûr fu ñu ma woo rek ma ñëw incha allah assuré ko. Ah, bu ñu wooyee nga ñëw assuré ko ah? Ah, waaw waaw. Mariama yaa wax loolu de. ah waaw ragalu ma ko. Mhm. Mhm. Mhm. mais yaay point zéro Sénégalais yëpp dañ ko safoo ndax mën nañ xalaat leneen loo xamante ne di nga leen ko indil lu gën a neex yaay 2.0. waaw incha allah yéen xaar leen rek xaar leen rek. waaw na ngeen toog leen xaar rek. macha allah xam naa ne kàddu yooyu am na solo loolu ci li nga xamante ne aussi moo di waxtaan bi waaye ndaw nga boo xamante ne mën nañ ni porte-voix nga bu ñu tollee ci moment yi réew mi xaw a métti sénégalais yi ñu bëri tiit naan réew mi dina taxa ko lu tax say kàddu sensibilisation ci say moroomu jeune ci say moroomu papa ci say moroomu yaay ngir jàmm amaat ci réew mi yan kàddu lay doon. Euh, parce que c'est vrai que dëkk bi léegi jaxasoo na metti na parce que maa ngi suivre actualité yi vraiment maa ngi gis lu bëri mais juste que pour man réeroo moo am ak ñàkk déggoo rek mais bon nañ jéem a ut terrain d'entente waaye mais surtout jeunes yi ñu def attention parce que lu ñu bëgg bëgg bëgg bëgg bokk xeex seen seen seen réew nañ def ndànk parce que voilà bakkan moom kenn du ko kenn du ko amaat kon ku dee ku dee rek yaay ñàkk donc nañ def ndànk daal def attention vraiment. kontaan naa bu baax a baax a baax ci jàkkaarloo. <laughs> maa leen gën a kontaan. jërëjëf Mame Aly merci.